mbokk jullit yi mbokk téléspectateurs yi nga xam ne yéen a ngi seetaan seen télévision QTV nekk First Private TV ci Gambie amaan nañu mbégte ak kontaante di leen suwaat ak yéen comme ni ñu leen ko diggee woon rek ay bés bi passé ci ajuma ji lañ wasalaatu wasalaamu ala ashraf al anbiyaai wal mursalin sayidina muhammadin nabiyi al ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam mbokk yi seetaan di seetaan QTV ñu ngi leen di nuyu waaye ñu ngi leen di ziar ñu leen di ndokkeel bu baax. ci weer wi waaye ci bis yi Seydina Ousmane xam ngeen ne ñu ngi ci weeru màgg yàlla suturaal ñu yaakaar naa ne war nañu egg ci fukki fan yi ci digg bi de waaw gars yi ñuy compté moom maasé Aliou Diallo compté gu ne fukk yaakaar dañu war a compté fukk nag kon yàlla bu baax a baax mm-hmm. eh, doonte nag eh, doomu bu nekk luy woy lu ne mënut a ñàkk woy waaye luy woy lu luy wàññeeku la ci moom ñu ngi ñaan yàlla nag lépp luy wàññeeku bu gërëm ko luy ñëwit mu tàggat ñu bañ defee ko nu dëppoo ak ni nga xam ne noonu la bëggee mm-hmm. moom suñu borom subhanahu wa taala ñu koy ñaan loolu di ko ñaan it fukki fan yi ci digg bi li ci wax rek mooy njëggal gi ak yooyu yëpp daal mm-hmm. weeru daal weeru yërmande la weeru njëggal la mm-hmm. eh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañu laaf li ci yërmandeem doon li ñu ko sax la ñuy wax ndax moom jàmm fi bàyyi rek yërëm na la waaye yàlla nañu xaasal xaasal ci njëggalam eh, bi jaahi nabi Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Seydina eh, di kontaan baax a ci daje nag macha allah comme ma daje boo xam ne saa yoo dajee sa morom ci yàlla ngeen dajee ak yonent bi sens boobu nañ koy sant yàlla mm-hmm. Mm-hmm. di ko yéene ñëpp waaye di gëm ne incha allah yàlla dina defal dina defal ngërmande eh, ci daje yi incha allahu taala tabaarakallaahu noonu la ñuy jaaree rek nuyu ji eh, kilifay diine ji ak mboolem kilifay aada yi tabaarakallaahu eh, xam naa nag dinañu jël benn break bu gàtt ci wàllu technique la incha allah As a Muslim, welcome to the holy month of Ramadan. QCell brings you its Q Ramadan and Q prayer services from the comfort and convenience of your home or office at affordable prices. You can subscribe to a service that reminds you of the times of fasting and prayer. Q prayer service provides you with the current local prayer times. To subscribe for a month to get automatic updates, send prayer to 3 tabaarakallaa mbokk yi ñu jéggalu rek ci dog-dog boobu euh, ngir mbiru machine moom ni mu demee ñun ñëpp xam nañu ko léeg-léeg rek du ñàkk yu ni mel di ci xew waaye ala kulli xaalin euh, imaam Aliou ñu ngi nuyu kilifay diine ji nuyu kilifay aada yi kilifay diine ji imaam ratib duñu ko fàtte ak mboolem ak imma yi ak mboolem jullit yi ci réew mi waaye nuyu kilifa aada yi his excellency président suñu ko nuyoo nuyuwaale mboolem cabinet membre waaye nuyu mboolem ñi nga xam ne rek fa tabaarakallaahu ñu ngi yeewoo ci réew mi Euh, naka noonu tamit ñu nuyu suñu kilifa yi Hadj Ousmane Dia nuyu itamit fa tabarakallah professeur docteur Omar Dia nuyu waa kër gi Mouhamad Dia euh, fi mu mën a nekk rek yal na yàlla defal ko jàmm ak tawfiix waaye mu dellu siwaat fekk ñu ci jàmm ala kulli xaalin nuyu njabootam ñoom ñëpp euh, waaye ñu nuyu technical team bi nga xam ne ñoom ñooy jàpp ci liggéey ba mbir yi mën a yem yaa imam ñu am kontaante bu baax nag tey ñu am gan Euh, gan goo xam ne fa tabarakallahu euh, jaaroon na fi bàyyi fi loo xam ne euh, man naa wax ne ba léegi gaañaa ngi koy sàqar mi <laughs> jeexagul waaye ala kulli alin ñu am mbégte ak kontaan mu bokk ci ñi nga xam ne ñoo sanc programme bi nag dëgg dëgg Seydina Ousmane bokk ci ñi nga xam ne ñoo sanc programme bi mhm. damay wax ne dalalkat la ci ñun mhm. duutul gan dafa am koo xam ne yéen moom benn ngeen mhm. ca fam ne ak ci lu mu mën a yëngatu mhm. dañuy wuutu wante rek mhm. fi mu ne nii tey wax dëgg yàlla mënoon naa jóg mu toog sama place mhm. yow it mën parce que mën ngaa jóg mu toog sa place li ko waral mooy dañoo bokk jàng bokk yaru bokk di ànd bokk bokk lépp kon kooku moom kër gi moo ko moom dabaarakallah macha allah Seydina Ousmane comme ni nga ko muy euh, oustaz Alioune Badou Ndiaye mbokk yi oustaz Alioune Badou mii nag moom la ñuy dalal yaa oustaz ñu euh, wax la nga agsi ci jotaay bi euh, fa tabarakallah mbokk yi di taalube nekk tamit dongo daara waaye tamit doon ko xam ne lépp loo xam ne rek lu yitteel diine la yittee ma nga ca mu ngi cee yëngatu yaaw saas ñu jox la nga nuyoo ak téléspectateurs yi bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin وبه نستعين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye itamit di leen sant waaye di leen gërëm di gërëm képp koo xam ne rek mu ngi ñuy seetaan di leen balu aq gannaaw bu ñu leen baale aq asalaamaaleykum wa rahmatullah tabaarakallahu yaa imaam mu mel ni tey su ma juumul ñu ngi waxtaanee koor koor ak bakkan ak bakkan macha allah euh, mbokk yi bakkan waxuñ bii nag mm-hmm. li <laughs> <laughs> bakkan rek ñoom bii la ñuy gis waaye bii dafa am bu mu mm-hmm. te boobu incha allah bu ngeen dégloo oustaz di ngeen ko mm-hmm. xam waaye xalaa euh, euh, kulli xaalin rek oustaz dañ lay bàyyi nga ubbeeku ci thème bi incha allahu su ko defee ñu doog a ñëw ci waxtaan wi dëgg-dëgg baax na bisimilah rahmaani rahiim. allahuma salli ala muhammad wa ali muhammad wa sallim. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. gannaaw bu ñu sante suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. di wax dëgg yàlla xiiwal gi nga xam ne xiiwalal ni ñu ko ba ñu tombeel weeru koor bi di sant kilifa yu baax yi. waaye tamit li nga wax ne mooy thème bi tey muy bakkan. comme ni nga ko waxee du bakkan bii ñuy xool fii ci ci xar-xanam bi. Euh, bakkan ak weeri mhm. waaw am na alaqa boo xam ne nii alaqa matiina bu ndax seen diggante ñoom ñaar mhm. ndax benn bakkan mhm. balaa ñoo wax lan mooy bakkan mën nañoo wax ndax mën nañ koo tazkiya wala déet euh, dañoo fekk doomu aadama bi ko yàlla bindee mu nekk nit koo xam ne dafa yittewu yaramam su xiifee day fexe nu muy def ba lekk mhm. su feebaree dafay gaaw a dem gisi këri docteur mhm. waaye bu tilimee dafay gaaw sangu mhm. maanaam ku yitteel yaramam la euh, kon si boobaa ci la ñuy doog xam te mu sàgganee dañuy ooyee bakkan wala boog ruux fii bakkan mën nañ ko tuddee ruux am na feneen foo xam ne nag mën nañ koo tàqal luy bakkan ak luy fii mën nañ ko tuddee bakkan moom mooy ruux nit nit ki amee yitte bu tilime sangu bu feebaree ci docteur non la ruhu tamit soxlay nit ki mu diko fajj way diko jox muy lek diko jox muy nan ñu bari nak dañ ko xawa saganal sàgganal yontu bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ñuy wax ne alaykum bi bi akhlaq alaykum bi husnil xuluq fa inna allaha tabaraka wa taala bi ba'athani biha mu dellu waxaat ci beneen xadis tamit di wax ne bu'istu li utammima makarim al axlaq kon foofu la ñuy xamee ndekete bakkan ni ngay sangoo di solu di lekk di naan di feebar di uti docteur bakkan tamit noonu la soxlaa di lekk di naan waaye tamit di ut docteur ndax yontu moo ñu wax ne ñu fexe di mbuboo jikko yu rafet jikko yu rafet moom mooy jox bakkan pour muy lekk wala muy naan wala moom muy sol loolu nag kon fii la ñuy xamee kon ne bakkan man nañ koo laabal dëgg la mm. beneen bi ci des mooy ahamiyatu taskiyatu nafs mm-hmm. ban important la am ndax ñu xoolee yàlla subhanahu wa taala mboolem yonentu boo xam ne mos na ko yónni rek mm-hmm. mission bi mooy lan mm-hmm. mooy mu fexe laabal bakkan yi ndax yàlla muy wax ne wala qad manna ala al muminin id baasa fihim rasulan min anfusihim yatlu alayhim ayatihi waaye nag wa yuzakkihim oh, la dëgg la ndeke nit. su fekkee da nga koo bëgg. balaa ngaa def ci moom dara. foog nga taskiya ko. moo tax mag ñi daan tarbiya. waaw nit ki bu fekkee da nga ko bëgg balaa ngaa def ci moom dara. foog nga tarbiya ko laabal ko ba mu set. ndax it yàlla war nañu ko suñ dundu aada. soo amee lekk gu neex. balaa nga ko def ci bool. nooy njëkk a def mooy da ngay raxas bool bi. Mm-hmm. ba bool bi set. nga doog a jël li nga soxla li nga. Euh, li nga li nga bëgg mm-hmm. Mm-hmm. nga def ko ci sotti mm-hmm. kon doomu aadama bi moom itamit benn bool la boo xam ne yow nga xam ne kilifa nga balaa nga cee def dara foog nga raxas ko ba set ndax yontu bi dafa ñëw pour raxas ñu bañ set mu doog ñëw jàngal wa yuzakkiihim wa yu'allimuhumul kitaab wal hikma moo gën moo tax kon ñu xam ne kon ndekee pour tazkiya nas maanaam pour laabal bakkan lu am solo la te it yontu bu fi mos a jaar loolu la ko yàlla yónnee woon في تاي مون لاني في واخني بكان مان نكو خاج ñaar امنا نفس بو خامني نفس ملكوتي لا واي امنا نفس بو خام نفس دنياوي لا بتعبير اخر امنا نفس المادي واي امنا نفس المعنوي ñaari bakkan yi benn bi ci nekk rek mhm. jar nañu bàyyi ko xel bu baax mhm. ndax yonte bi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam day wax ne aada mhm. aduwaka Mm-hmm. nafsaka la si bay na jan bayk mm-hmm. sa noon bi gën a mag mm-hmm. mooy bakkan bi nga xam ne mu ngi yow ci sa wet mooy sa noon bi gën a mag fii nag bi ko yonent bi di wax mu ngi wax mooy nafs bi nga xam ne amaara bi suu amaara bi suu bakkan boobu dafa nekk bakkan bu garaaw ndax bi ñu yàlla bindee daf ñu teg ci kaw xatul istiwa wàccee ñu si ko suuf ki bakkanam ki sàggane bakkanam ba mu yàq ko mhm. moom dafa jógee ko fii ñu yàlla teg nii mhm. moom mu jëm suuf moom mhm. mooy amaara bi suuf kooku moom ni mu gën a bonee ni mu gën a kooku moog baxaa yi mi ñoom ñoo em bakkan boo mooy bakkan bi nga xam ne moo lay digal nga lekk nga naan nga nelaw nga sëy moom passé loolu képp koo xam ne ni yow gis nga ne yow lekk naan nelaw sëy rek mooy yow sëyite mm. booy boo xam ne yow yaa xarmale <laughs> wutewu leen dara ndax xarmi day lekk di naan di sëy <laughs> kon yow it yaa ngi moom yéen macha allah ndeke kon mm-hmm. yàlla am na beneen bakkan boo xam ne moom tagg na ko mm-hmm. te it bi mu indee fii mm-hmm. loolu ñu wax ne nañ fexe pour ñu éeg pour jëm ci moom ndax bakkan dafa nekk malakuuti bakkan dëkkut fii yaram moo dëkk fii ci àdduna waaye bakkan dëkkut fii ni maalo ak maalo xam na njóge ni bëgg nañ maalo waaye maalo ak saako maalo lu jara lu jara fàcc fàcc eh, naka faram fàcce la mm-hmm. Mm-hmm. dañ dajee waaye duñ benn duñ <laughs> benn macha allah ñoom ñaar dañoo dañoo ànd kon bakkan ak ruuxu mm-hmm. dañoo ànd mën nañoo ànd nag waaye kenn ku nekk li ngay dox ak sa morom sa du benn wutee na waaye man ngeen mën a ànd bakkan ak jëm waaw bakkan ak jëm jëm moom fi la dëkk moo tax mu soxla lépp lu ñu bàyyee fii ci kaw suuf moo xam lekk la naan la tëdd fii moom wariwul mhm. mhm. waaye bakkan nag moom dëkku fi mooy ruuxu mhm. moom moom dëkku fii moom dafa am fi ñu ko jëlee indi ko fii pour tes ko mu def benn koos bu muy def pour delluwaat fa mu jëm loolu moo tax bi nit ki juddoo lim njëkk a def bi mu ne tëll ci àdduna rek ci la xam ne man fi ma nekk dëkkuma fi fi ma nekk nii man dëkkuma fi nit nag bu ñu la sànnee ci biir teen yow boo eggee li nga njëkk a def xam ne man dëkkuma ci teen bi li nga hmm. njëkk a def mooy nu may fexe pour dellu fa ma jógee hmm. moo tax liir bu daanoo rek hmm. dana jooy waaye li muy njëkk def mooy ndax fii dëkkuma fi xaaral ma fexe dellu fa ma jóge moo tax muy mën a lekk lekk goo xam ne lekk fa mu nekkoon la mooy wenam weni yaayam moo tax nit bu juddoo doo ko boo ko doon jox lekk yi si àdduna ko mën a lekk benn lekk rek lay mën a lekk mooy lekk boo xam ne moom moom ñoo dëkkoon mooy nit dafa bugg pour dellu fa mu jógee ko waaye nit warut a dëkk warta euh, xelaat pour toog fi mu nekk nii mm-hmm. mm-hmm. Seydina Aliou nag mu ngi wax ne mm-hmm. bakkan nafs mooy jawhar samina dégg man za man man saanaha wa man ibtatalaha wadaaha nee na bakkan mooy urus woo xam ne jamono boo ko xormalee mu yëkkati la mu jaay la waaye boo ko sàgganee mu yàq la maanaam mu teg la kon fii mooy bakkan bi nga xam ne mhm. mooy bakkan mut euh, wala wala boog mooy amaara bi suu mhm. boo xam day digal nit ki muy def lu bon mhm. bi nga xam ne nag moom nit bi mu taxawee fii dafa fas yéene pour jóg mooy lawaama yàlla ba mu yónnee bakkan mu ñëw fii ci kaw suuf bàyyiwul ko fexe na ba bés bu ne mu fexe bakkan bi di jokkoo ak ak jóge mu jógee ko mooy waxtu yu juróom nit ki jamono bu taxawee pour julli mhm. ruuxum mu ngay lekk mu ngay naan mhm. ci aalamul malakooti dëgg <coughs> moo tax jamono boo bëggee jokkoo sa borom rek mhm. ngay nekk si julli mooy yow yaa ngi am connexion ak fa nga fa nga ko weeru koor ñëw ñu ne la ah bii dañ daan indi lekk juróom yoon fi mu ne nag weer a ngi nii woo xam ne dañ la ubbil bunt bi yëpp pour ngay mën a lekk nga yefal ko bu baax nga nga mën ko yefal dëgg la ah santum pour nga mën ko yefal mhm. loolu moo tax weeru ko dafa ñëw mhm. kii dafa daan am par juróomi yoon ci bés bi ne mhm. far na bii ñu ubbil la nag bunt ak palanteer ne la gaawal na nga jël li nga bëgg nga xam ne lu ko fa dooree ba déwén doo ko soxlaati loolu moo tax bakkan ci weeru koor dafa war a jóg gaaw njëkkalante lépp lu man pour mu def ko ah ci kaw loolu nag ñu gis ne su may misaal ne nit bu fekkee dafa jógee ko ca kaw ga mhm. ñu indi ko ci teeru bi mhm. Mhm. waaye bés bu set ñu fexe nga koolanteeg waa kaw ga lekk yi ngay lekk ñu lu ko yónnee yow ngay lekk ko yow sax xel du mës a génn ca kaw ga ndax fa nga dëkkoon ñu ngi la fa yónnee sa lekk kon yow teeru bi lu mu yàqu yàqu yàqu. yow doo wóor yow. sa xel daal mu ngi fële rek. mu ngi fële loolu nag moom la ñu ooyee kamaalu inqitaa. moo tax waliyu yàlla yi. dañuy ne fii ci àdduna di dox. waaye fekk ñoom. nekku nekkuñ fi lu tax mooy ñox seen lépp nga fële saa yu maree ñu xiifee ñu ngay lekk ñoom jëmm ji fi nekk di dox ak waaye nag seen lépp mu ci kaw a lekk-lekk yu ñëw mu bàyyi ba waa teer bi foyee ko moom day xam nga lu ñuy wax roy dàq <laughs> bakkan dafa mën roy dàq bakkan bu ñëwee mm-hmm. moog yaram bi dañuy xëccoo mm-hmm. yaram bi ne ko man nag fi laa dëkk mm-hmm. li may man mooy naa fexe yow nga dëkk fi bi day fexe jël waa kaw kaw bi ko da ngay fexe nga dëkk fi <laughs> bakkan euh, ko déedéet man fa ma jógee ko mun ma koo fàtte te it maa ngi am lekk gu fa jógee ko di ñëw léegi la ñu yónnee ma cere ma ñëw kooku waxtu nekk moom day fexe moom di xëcc bakkan euh, yaram naan ko nañ nañ man nañ nañ dem xeex bi nag ci la bakkan ak ak ne ku ci man sa morom rek yàq sa morom ñu nag ñu ñaan yàlla mu boole si ñi nga xam ne seen ruux mooy man seen jëm waaye jëm moom bu la manee rek mhm. kooku asfala saafili lañ ko doy ah, mhm. waaye nag bële nag moom bu fekkee mën na ruuxu mhm. kon kooku day nekk nit koo xam day dund ci malakutul ilahi macha allah ah macha allah <laughs> euh, imaam ali dëgg euh, dëgg oustaz Alioune Ndiaye indi na lu am solo ci bakkan euh, tabaarakallaahu muy man taarif bi rek moom ci gën a daaneel mhm. nim ñu ko misaalee ba nga mhm. xam ne kenn ku mu doon ci ñun mhm. fekk na la ci sa niveau dégg nga mën koo déglu dëgg la waaw tabaarakallaahu euh, Seydina Ousmane dafa di wax joo xam ne du yéeme la euh, fi mu commencé moom la ñu war a njëkk bàyyi xel mooy wan nañu ne suñu waxee bakkan dëgg-dëgg maqaam mi mu koy waxee mooy ruux la ci namm mooy ruuxu la ca namm mhm. beneen bi ci des mooy mu leen ñu bu baax a baax mhm. kenn ku nekk ci ñoom ñaar mhm. fan la jóge ak fan lay dundee kii dafa jóge fii lu nekk ci fii moo koy dundal te mooy jëmm kële jugee ca malakuut mooy jóge ca yàlla foo ko foo ko soob mu jëlee ko fa def ko ci doomu aadama kon moom fa mu jugee loolu koy dundal yàlla boole leen nag ñoom ñaar ne leen ànd leen mu mel ni ñaar yu safaanoo la mhm. ba pare nag di notante mhm. mu mel ni tey bu ruuxu notee jëmm ci ni ma déggee mhm. jëmm jooju dafay sell comme ni ruuxu selle parce que ruuxu taqut bu jëmm notee ruuxu boobaa nag lañ koy tuddee bakkan bi nga xam ne dafa ñaaw dafay diglu lu ñaaw dafay def lu ñaaw ba sax mun naa gën a bon ñim fi fekkoon loolu bokk na ci lañ ko déggee liñ déggee ci ci njàngam bi li nga xam ne nag moom a ci gën a eh, jàng moom laa ci gën a eh, jàng mm-hmm. mooy li mu teqalee ne bakkan wala ni ko yàlla bindee mm-hmm. dafa xam lu ñu tuddee mulkiya xam lu ñu tuddee malakoot mm-hmm. mulkiya mooy li nga xam ne ci àddina dong la yem malakoot nag mooy li nga xam ne mooy li mën a dékku leer yàlla yi di ko jëlee foofu muy dund ak moom ci kaw euh, suuf sile mu doon loo xam ne njàngat yu am am solo la li nga xam ne moom lañ ci teg rek Seydina Ousmane mooy dëgg-dëgg sang bi lu eh, ñu la wax rek da ngay xam ne yonent bi daal dëgg-dëgg kenn la koo xam ne lépp a ma mat maanaam kenn la koo xam ne lépp ma mat fi mu commencé mooy laqad manna Allahu alal mu'miniina iz ba'asa fiihim rasulan mooy yàlla dafa xéewalal nit ñi bi mu yónnee yonent boo xam ne bi mu ñëwee li mu leen indil du def lu mooy yàlla daf ko wax ne du bu si def lu dut nga sellal fi nga koy def ba pare door faa def li nga fay def maanaam tey doo jël lu bon lu baax mhm. di ko def ci ndab lu bon mhm. da ngay jël lu baax kay def ko ci ndab lu baax mhm. lu loolu continuer di baax waaye jël lu baax def ko ci lu bon lu dafay bon rek tey boo jëlee loo xam ne eh, ndab bu tilim la def fa ñamu ñambu ñambu sell ci saa si nga gis ñam ñam yu forox waaye say soo jëlee ndab bi seet sellal ko ba mu sell nga def fa lu baax dana fa yàgg lool tey soo continuer di ko beesal dafay continuer di bees loolu mu doon loo xam ne luñ ci njàngat mu am am solo la mm-hmm. moo xam ne dafa lay leer na yonent bi li ko indi woon mm-hmm. ak li ko tax a jóg dëgg-dëgg mm-hmm. mooy jëmm ji nga xam ne waa suuf la ñu fexe ba mu nekk waa kaw jëmm ji nga xam ne ci suuf la bàyyi ko ñu fexe ba mu nekk ca kaw a kaw yëkkatiku lool mu fexe ba mu uuteeg misal yi ñu yàlla indil te tudd na ko mais misal yi ñu yàlla indil mooy nit ki dafay mel ni malaaka ci baax ma la mu ko wala mu gën a suufee bàyyi ma ci suufee wala qad zara'naa li jahannama kasiiran minal jinni wal insi lahum quluubun laa yafqahuuna bihaa wa lahum a'yunun laa yubsiruuna biha wa lahum aazaanun laa yasma'uuna bihaa ulaa'ika kal an'aam bal hum adallu parce que bu fekkee ne bàyyi ma yàlla da ko bind joxut ko xel joxut ko dara moom lu mu xam lii rek la li li sëñ Aliou Ndiaye wax lekk ak naan ak sëy do nga la xam lu dul loolu xamu ko yow nga yàlla jox la xel nga waroon a xam lu ëpp loolu mhm. nga sàgganee la nga waroon a xam ba bàyyi ko kon mhm. yow bàyyi may ñoo la tane parce que dañ leen bindee noonu mhm. yow nag da nga sa bopp ba mu gën a suufee te lii yëpp li la ci yóbbu mooy bakkan boo xam ne yaruñ ko macha allah kon ñu ngi kontaan bu baax a baax ci ubbee gi Seydina Ousmane tabarakallah Imam Ali dañ daan wax ca xaleel ne mbaam bu la weqee nga weq ko mbaam nga <laughs> dëgg la euh, tabarakallahu mu am solo ñu bàyyi xel fii nag mooy manzila yi nga xam ne moom la bakkan am la ñuy waxtaane parce que ñaari nit ñi boo ne bakkan bi nangam ak bakkan bi nangam dafay mel ni ay bakkan yoo nekk ci nit ay te te ruuxul lañuy ñuy waxtaane mhm. euh, moom lañ miin ci bakkan mhm. comme bu boobaa mën nañ cee am yëg-yëgu kon ay wàccuwaay la yu bakkan di am mhm. mooy ne euh, bakkan ba nga xam ne moom la salixa amoon ca yusufa ba tax ba jëf ja ñaawee mu dem ba xam ne léegi euh, li ñuy ooyee damiram not na ko il faut mu wax li ne ci moom moo waxoon ne wa maa ubari un nafsi inna nafsa la amaarati bi suu dara taxutoon jëf ji lu dul na sama bakkan rek moo ma yebaloon pour ma dem def ko ah, gis naa rafetaay Yuusufa ñëpp a ngi koy gis mais li ma juux man li ma li ma poussé man kenn man ma ñëw sàkku ko te ñëpp ne fi loolu dafa am ku ma ko digal loolu man manzila la wàccuwaayu bakkanam mm-hmm. moo toll woon ci leebul boobu mm-hmm. léegi nag taskiya bi imaam Ali wax mooy fexe di yëkkati bakkan yi ci mm-hmm. maqaama yi mm-hmm. parce que ku bëgg a yéeg ci ay tabax tabax yu kawe mm-hmm. da ngay da ngay jéggi ay escalier di àgg ci ay stage par stage par stage ba àgg fa nga jëm su ko defee loolu moom la taskiya ni mu ko waxee di jëriñ jëmm ji nag ak ruuxu gi pour ñu ñëwaat ci moom euh, ñoom ñaar dañuy xeex benn bi bu notee benn bi baaxut waaye benn bi bu notee benn bi baax na ñoom ñaar ku ci not sa morom euh, maanaam kenn ku ci ne day jéem a not moroom mm-hmm. waaye ruuxu su notee mm-hmm. njëriñal bakkan la mm-hmm. bakkan bu note notee loraangeeg bakkan la di loraangeeg ruux dëgg macha allah <laughs> ñoom ñaar ñëpp dañ ciy lom <coughs> dëgg la mooy combat bi nga xam ne daal menn mbër mi bu daanoo musiba la euh, bu bu daanoo musiba la menn mbër mi nag bu daanee njëriñ la ñëpp <laughs> kon tabarakallah imaam Ali <laughs> Eh, seen ali ñu bàyyi la nga ñu bàyyi la nga <laughs> nga nga continuer ci tomb bi li nga ci doon jàngat. baax na foofu dañuy wax ne yonent bi sallallahu alayhi dafay wax ne ajibti liman yaxtami min a maxaafata daa'i wala yaxtami min adunubi maxaafata naa maxaafata naari nee moom dafay waar waxtu ne bu gisee nit koo xam ne buy togg mhm. day fexe ba ñam wi pënd lu ci dugg ngir ne dafa ragal su ko lekkee feebar mhm. waaye duy yittewoo mhm. bàkkaar mhm. ngir ragal safara ndax ruuxu ñam ngi lu koy tilimal mooy pënd yëg yi soo ko lekkee feebar ruuxu tamit li mu bañ mooy bàkkaar bàkkaar moo koy tilimal kon nit nooy ngay booy booy lekk booy booy togg lekk ni ngay fexe ba mu set noonu nga ngir nga ragal feebar noonu nga war a fexe sa bakkan lépp looy jëf nga mutu ci bàkkaar ngir ne sa ruuxu bu mu am problème ëllëg su ko defee nag weeri koor bi lan la am ak li nga xam ne mu mooy ruux xam nga yàlla suñu borom subhaanahu wa taala bi mu ñu waxee na ngeen oor weer wi yëpp daf ne farataal farataal naa ko ci yéen comme ni ma ko farataalee woon si ñu jiitu woon ngir ngeen mën a cee fàggoo lan taqwa taqwa ndeke dundu doomu aadama doomu dundam dafa am hadaf mm-hmm. nit ku nekk dundam mm-hmm. dafa am aim mm-hmm. waaye hadaf su amee. Mm-hmm. mooy soo amee im ba pare. foog nga am stratégie. Mm-hmm. soo amee stratégie ba pare. Mm-hmm. foog nga am tik tac. pour mën a egg. li wusulika ilal ila hadafik. yàlla bi mu ñu waxee ne or leen weeri fan. waxul ne ngeen egg ci man de. pour ngeen fàggoo ci wa te taqwa. taqwa mooy yóbbal ba ngeen di jógee nag. pour doog a dem si yàlla. macha mm. allah maanaam bu ñu orontee ba weeru koor bi jeex mm-hmm. dañ ci fàggee ne ah, fàggoo ne fi mu nekk ni am nañu yóbbal mm-hmm. léegi mën nañoo départ nag pour dem tukki est-ce que mm-hmm. waaye du na ku or ba weeru koor bi jeex rek nga ci yàlla mm, <laughs> kon bu <laughs> su ko dee kon or dafa ñëwoon pour ñu fàggoo ci yóbbal aji màkk dafa ñëw mm-hmm. ndax daf ne fa tazawwadu mm-hmm. fa inna xayra zaadi taqwa mm-hmm. aji màkk li muy coono bi ci métti yi ni coono bi ci nekk yëpp boo ko dajalee mooy ngeen fexe ngi amee ci taqwa nga xam ne nii boo ñibbisee ba li des sa dund yëpp yow doo mënatee jàdd ngir ne fàggoo nga fa loo xam ne moo la yóbbu yow ba nga àgg su ko defee fi mu nekk nii nag gannaaw am nañu hadaf ñun suñu hadaf mooy la pour ñu egg ci yàlla mooy jullit bu nekk yéeneem mooy pour naka lay def ba egg ci yàlla yàlla indil ñu it mhm. fu ñu mën a fexee ba am mhm. yóbbal mhm. mooy mu indi weeru koor mu indi julli mu indi génne asaka mu indi sarax li yëpp ay mbir la yoo xam ne nit ki mën a ci amee taqwa su amee taqwa ba pare na léegi na nga doog a dem egg nag ci sa borom mu mel ne ku bëggoon dem Banjul li nga njëkk a def mooy a ah, fa nga moto bu laa yóbbu loolu mooy weeru koor léegi soo moto bu pare nooy drive nag pour dem ba Banjul loolu mooy tic tac bi nga use pour war a mën a egg yow ci loolu mooy nit ki bu weer jeexee lépp loo ci fàggoo ci ragal yàlla moo lay yóbbu moo lay drive ba déwén moo lay drive ba déwén jamono boo bëggee daanu rek mu la ah daaw ci weeru koor bi fàggu woon naa loo xam ne mën naa ci lekk ba déwén su ko defee yaa moom yéen ànd ba déwénati weeru koor beneen weeru koor doog a ñëwaat kon lii mooy li nga xam ne mooy bakkan naka lay man a jëlee ci weeru koor comme que mu ngi naan jël bët bu set juróomi yoon ci waxtu yu julli bii nag ñu indi ko ubbil ko bunt ak palanteer mooy mu tibb lu mën a tibb mhm. ngir mun koo dawal maanaam mu jël petrol boo xam ne essence bu doy mhm. ngir nga mën a daw ba déwén mhm. pour boo paan ci yoon li mooy li nga xam ne mooy njëriñu weeru koor ak lan lay def ci bakkan bi nga xam ne dafa fas yéene pour dellu moom fa mu bàyyeekoo waaye bakkan bi nga xam ne dafa bëgg a des am na bakkan boo xam ne dafa bëgg a des waaye boo xam ne moom dafa bëgg a dem boobu nag mooy ah, naka lawaama bakkan bi nga xam ne mooy nafsul lawaama nit ki yàlla gannaaw wàccee nañu ay buum mhm. pour ñu mën see téye pour mën a mhm. egg ci moom mhm. léeg-léeg nit ki jàpp daanu su daanoo sa mhm. bakkan mooy lay yedd mhm. ne la waaye lu tax ngay daanu mënoo nga ñàkk daanu mënoo nga def nangam mhm. mooy nga def bàkkaar soo defee bàkkaar nikk ki buy daw ba daanu mooy dafa mel ni ku def bàkkaar sooy jaamu yàlla di jaamu yàlla ba ab bés jot nga def bàkkaar dafa mel daanu nga li nga war defaa mooy fexe jógaat daal di ko réccu daal di fas yéene pour téyaat ci buum gi pour commencé waat yow sa jooni mooy sa tukki ndax tukki la moo xam ne moom du jeex rawante nag daf ciy am waaye tukki la moo xam ne du jeex sooy góorgóorlu nag da nga toll foo xam ne nii. Mhm. doo mënatee daanu. Mhm. Mm. doo mënatee daanu. Mhm. yaa ngi fii waaye nekkatoo fi sa lépp nga fële. ñu ñaan nag yàlla mu may ñu loolu. loolu la ñu ñaan ñun <laughs> euh, mu mel ni mm, euh, weeru koor ngoog ni ngeen ko gisee ci oustaz Ali. Mm. Euh, mu jàngat ko jàngat xam nga li ma gën a neex imam Ali. léeg-léeg sax xam naa njóobeen ni dinañ ko jàpp caalit ci léeg-léeg nit ki la xel mi gën di nekk mhm. euh, ca la lay misaal dëgg la euh, li lay gën a jege ba nga xam ne euh, maanaam di nga dégg carrément misaal bi ci lim lay wax parce que wolof dañuy wax ne misaal ca la nga xam tey bu ñu la doon misaal lu nekk asamaan te mosoo faa xam mhm. sëñ bi dëgg-dëgg dañuy misaal ba dee waaye doo xam waaye bu ñu lay misaal ci nag yee xar yi te nga gis nag yee xar yi mhm. amee leen yàgg dëkk ak ñoom nga xam liñ lay wax tabaarakallaahu eh, Seydina Ali Ndiaye kontaan nañ bu baax a baax ci li ñu jàngala jàngalaat beneen mbir di mhm. wane ne ndeke mhm. julli yeeg woor yi mhm. jaamu yàlla yi yëpp lépp dafa am matériel maanaam dafa am bagage bu mu lay jox pour nga mën koo yóbbuloo ngir nga jëm fa nga ngir nga egg fa nga jëm nga tudd ci wa euh, koor gi nga xam ne tey dafa am xalaaq bu dëgër sax ak dimbale ruux pour mu dund loolu mu mel ni la ci yàlla wax mooy li ëpp solo mooy bu ngeen di góorgóorlu da ngeen ci amee benn yóbbal bu ñuy tuddee taqwa mhm. taqwa boobu nag mhm. boo ko téyee yàlla mu wax na ci beneen aaya mhm. ne ci la lay niitalee sax pour ngay gën di egg ci moom mooy wattaqullaha wa yuallimukumullah Seydina Ousmane mag mu jàng ba sonn ba dajal téere yi nga ñëw ba egsi yàlla ne la wattaqullaha wa yuallimukumullah kon li ko tax a jóg du li ma tiim mooy am na leneen loo xam ne papa du la ko jàngal sëriñ du la ko jàn man na la teg ci yoon di la guider. Mm. parce que loolu mooy tarbiya bi waaye da am tool foo xam ne mm. yaay téye sa yóbbulu bopp mm. fas yéene dem rek yàlla ne la comme que fas yéene dem téye nga tors mu ne la mu ne la taalal nga taal mu ne la niital nga niit mu ne la fii laa bëgg nga teg sama tànk nga bëgg fii laa bëgg nga teg sa tànk mooy wattaqullah wa te soo bàyyi xel ci ci bi mu ko waxee li sama xel njëkk dañ nekk dëgg dëgg yàlla ko xereñ la bi nga xamee ne doo jàngatee waxtaanam bi nga xamee ne suuf <coughs> mooy dundal jëmm te jëmm fokk mu seel mhm. te doomu aadama dafay bëgg lu mu ñaq mhm. maanaam loo sonn Seydina Ousmane mhm. da nga koy bëgg ba nga xam ne loo sa doom sa soxmet doo doo ko ci mën a muñal lam la ci laal nga xiiru ko waaw ku ci laal nga xiiru ko nga def noonu di dajale di faago ba pare yàlla ne la jël si jox diw jox diw man naa am diw moom ba ngay bàyyi mu ngi lay seetaan <laughs> lu doy waar la <laughs> yàlla ne la jël si jox diw xus min amwaalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha maanaam bu ngeen ci jëlee ñaari mbir lay def benn mooy yow ci sa bopp mhm. am na lu nekkoon ci yow loo xam ne waroon nga koo ba xel bu baax a baax mhm. mooy li nga tiim warul laa moom mhm. yàlla dina la laabal ci baat boobu mooy li nga jàpp ne yaa moom li nga jàpp ne moo la moom li la contrôle yàlla daf la ci laabal mooy jël ci nga joxe nga nga nangu cee jël nga joxe beneen bi ci des mooy mooy baatab taskee bi mu jëfandikoo mooy dina la laabal te dina laabal sa alal dina laabal sa bakkan mooy mm-hmm. da ngay delloo lépp yàlla da xam ne mm-hmm. nekk xalaal moom ma ko mm-hmm. kii ma moom moo ko moom Seydina Ousmane bakkan bi wax dëgg yàlla su ngeen di xool ci ponki lislaam bi da ngay fokk ne da ngay fekk ne yëpp dara ñëwul ci lu dul laabal sa jëmm laabal sa bakkan ngir nga dëgmal borom bi nga xam ne moo la moo moo moo la bind eh, moo tax nga jóg lii Seydina Ali Ndiaye jàng nañ ko ci bu baax baax a baax li ma ci gën a frappé rek mooy yóbbal bi nga xam ne moom ndeke moom la yàlla di jox jaam ñi te yóbbal bi yep moy taqwa su ngeen baye su ngeen ni geustu buntab taqwa da ngay fekk ne deug deug dëgg mooy li meuna pousse nit ki rek mu jeex ci borom wa motax tax fa mu daanee beneen ayib mooy wattaqullaha wa yuallimukumullah sayyidina usman tabaarakallahu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha allah wa salli alayhim inna salawatuka sakanun lahum so baye xel tutahhiruhum wa tuzakkihim parce que tutahiruhum laab googu mhm. mooy àq jàmbur nekkatul ci sa biir moomeef mhm. jox nga ko borom kon alal ji fi mu ne laab na leew na mhm. domm wa tuzakkihim yàlla dogg na ci wullee ci sa bakkan ci sa alal dëgg euh, mooy wulli ruux wulli ko ci lan mooy ruux bu ñëwee dafay bajjantu parce que moom benn mbir rek la bëgg waaye nag fexe ba noot ko ba lépp lu mu bëggati nga def lépp lu mu bëggati cër def lépp lu mu bëggati xel def lépp lu mu bëggati xol def loolu nag taskiya moo koy def kon dafay wulli ruuxu pour mu jaar fii nga xam ne foofu la sunu borom bëggoon ruuxu bi muy ñëw euh, looloo ko indi woon ci jëmm tabaarakallahu euh, léegi nag euh, Oustaz Alioune gannaaw bakkan léeg-léeg mu moome maanaam léeg-léeg mu man moone ba duma léegi bu defé loolu nak lan lañuy jëflat mu nek ngannaay pour mëna xéxat ak mom mëna déllu wat ci war wi parce que tay bu féké ruuh ak bakkan ñu ngi xéx lé lé bakkan moone ko léeg-léeg sax marhala bakkan bi nga tollu sax dimbalé la ci combat bi dila dila yedd muy nafsul lawama bi nga mu yedd la sax ba nga déllu gannaaw waye lan moy matériel yi nga xamné ne yi nga xamné bo démé ba yëg ci sa bop né mm. sa bakkan ngi moné sa mm. ruh mm. lan ngay jëfëndiko lo xamné dina la mané euh, a la mën a lo haat bu nga jotaat ci ci sa place mm-hmm. muy ruh waaw ya imam bo baye xel doomu aadama mm-hmm. muy ruhum wala mooy bakkenam mm-hmm. nafsum jamono bu comme ko mbir yu tukki la dox la bo xamné ñi dañuy dox jëm suñu borom légui légui daanoon mënees na koo nangu mhm. li ñuy wax rek mooy nikk buy dox ba daanu mhm. bu mu wax ne daanu naar damay toog damay tëdd foofa damay tëdd foofa mhm. li nga war def mooy fu mu ne nii jugaatal nga dem seetaan nag dana ñëw sa boor na fu mu nekk nii boo nekkee xale naan la ah defal bàkkaar rek maanaam del daanu rek yow nekk nii sa kanam yu kenn xamul ni mu fi dund ba ca kanam soo màggee tuuti tuuti. boo tubaab mu ngoog. Mhm. yaag moom yaag moom yaag ba ca kanam ba affaire yi bëri. Mhm. nga gëstu sa gannaaw xool li bàkkaar yi bëree. Mhm. nga ne cey man teemaa tuub mu ne la fi mu nekk nii kay passé na ndax yow fi mu nekk li nga def. yow yàlla dootu la baal yàlla du la mënatee baal. su ko defee yow nga dal di. nga naagu nga naagu. pour bañ loolu am. jamono bo defé bakkar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fay wax ne nit ki bu ken wax ke war ko def waye jamono boo ko defee fexeel def lu bax ci boram jamono bo daano rek fexeel suul pax ma pakk ba la daaneel daal fexeel nga gajj ko pakk bi la laal ba nga daanu fexeel buddi ko tege bor yaa ngi dégg mi mhm. ngi koy buddee nag mhm. baatab istixfaar ndax alquran moom wax nañu ko faqul istaxfiru rabbakum mhm. innahu kaana xafaaran waaye yursil sama aleykum midraaran kon nga gis ne kon baatab istixfaar mooy baat bi nga xam ne nit ki jamono bu juumee bu koy taxoo bu yàggee yàlla dana ko ëttalikoo ak li koy daaneel muy tuub pour dellu ndax yàlla moom moo moo def li ñuy wax inaaya ne jàmbi kat xam naa ne moom matut mm-hmm. te buy tukki foog mu daanu mm-hmm. waaye ni may def mooy xaaral mu am benn buum gu ma ko jox mm-hmm. bu may téye jamono bu daanoo rek su bu siggee xool buum ngi téye mën a jógaa taxaw dal di doxaat mooy istixfaar mooy buum gi nga xam ne moo jox ko nit ki ak boromam jamono bu ci téye rek dana yëg ne ah juumoon naa de waaye kii ma juumoon ndax eh, yonent bi sallallahu alayhi wa wax ne jaam yëpp wala nit ñëpp ay daanukat lañ mhm. ay defkati bàkkaar lañ mhm. ki gën nag ci ñiy daanu mhm. mooy koo xam ne bu daanu jógaat jaam yëpp ay jumkat lañ ki gën ci jumkat yi mooy ko xam ne bu juumee jéggalu yàlla mu ne man dama bugg ñuy jéggalu maanaam waliyu yàlla bi soo gisee mu dugg néegam di jaamu yàlla li bugg rek mooy pour yàlla bugg kon yow mi def bàkkaar ba foog ne yow kenn faalewul la mm-hmm. foog ne yàlla mere na la mm-hmm. yàlla mu ne te yàlla gën a bëgg ndax yàlla duut Aliou Badou Sakho mm-hmm. mi nga xam ne boo ko defee lu ko naqari mu mere la te du la mën na laa jéggal waaye mu yàgg yàlla mu ne déedéet jamono boo daanoo rek wàccee naa buum gi mu tiim la mhm. téye si rek nga jógaat mhm. man yàlla yow laa gën a bëgg sant ki wàll yow bi wallaahi dëgg la yow laa gën a bëgg ah, yaa ëpp garanti parce que yow moom yàlla wax na ne bëgg bëgg naa la walla yuhibbu tawaabi tawaabi keneen nag moom day wut pour ñu bëgg loolu moo tax nit ki buy dund buy dox ci tukki jam ci yàlla mhm. waxtu wu nekk lu ne man na koo gaar waaye na gëm ne jamono bakka réew ci kanamam wala amul bu musa naagu na yàlla du ko jëggal kon am na ay waxtu yu ñu jéggaloo mm-hmm. Mm-hmm. am na ay place yu ñu jéggaloo mm-hmm. waaye am na ay jëf yu ñu jéggaloo am na ay nit yu ñu jéggaloo dem si nit ku baax ku mel ne Alaaji Usmaan Ba ne ko man kat ah yëg naa ak tooñ suma bopp bëgg naa nga dimbale ma am loo ko jox pour mu dimbale la si ñaan wala mu jox la Mm-hmm. advice la na defal nangam ak nangam mm-hmm. loolu boo ko defee mm-hmm. mooy li nga xam ne moom mooy xëcc nit ki jamono bu daano loolu moo ko ekkati yàlla baxut jaam bi macha allah yàlla baxut jaamam euh, mbokk yi xam naa ne incha allahu ci kanam euh, euh, fi mu ne nii dafa jot pour ñu war a ubbi line si waaye ala kulli xaalin di wax ne kon ngànnaay bi nga xam ne moom ngay xeexaate mooy tuub bakkan bu demee ba gañ ba gañe la yow ruux Euh, sa jëmm ci sa ruux bi nekk sa jëmm ji mhm. li nga ko mën a dimbalee ci sam xel mooy nga dellu jox ko ngànnaayul tuub mhm. ker boo ko joxee ngànnaayul tuub nag mhm. euh, mooy ci bépp xanam tuub nag mën nañoo wax ne ay mécanisme yu bëree ci daje am na bi nga xam ne wéet sax di tiit ci li nga def xeetu tuub la xelaat ko mu ñaaw lool ci sam xel nga nga nga nga yëg ci sa bopp ne yow jëmm jii def lii day mhm. bu doon tey fi nga toog nii la mhm. doo ko def loolu mooy rëccu mhm. mooy ni ko sarta yey waxee nga di ko def beneen bi ci des mooy nga bëril istixfaar parce que istixfaar yi tamit dafa am njëriñ lu muy def ci jëmm ji parce que soo bàyyi xel tuub ak istixfaar dafay mel ni bokkuñ dara tuub ak istixfaar daf lay niru ci baat parce que benn baat rek astaxfirullah astaxfirullah rek dafa mel ni Euh, maanaam wax ko nii rek du mbir mi day mel ni am na leneen luñ wax waaye dafa am lu muy def mooy gis nga baat bi boo koy wax dafa am lu muy monte ci sam xel ba tax jëf yooyu daf lay jé da koy jéppi da koy sib booy bëril di ko wax ci sa làmmiñ moom ci boppam day dem ba wulli sa bakkan ci ngay sib jëf yu bon yooyu taxoon ngay wax astaghfirullah moo tax nag yonent bi moo xam lu nekk la koy faj per bi nga naan mhm. bopp bi fii lay méttee te bi ci biir bi la dem mhm. bopp bi fii la ne te per bi moom fii la jëm mhm. <laughs> kon ni def ba monté ci deret ba àgg faj li doon métti ci bopp loolu moo lay xamal ne la istixfaar médicament la buy dugg ci biir yaram boo xam ne am na lu muy euh, euh, euh, benn effectif bu muy def ci yaram su ko defee 5050 505 5050 505 ngeen mën a bokk ñun incha allah ci waxtaan wi imam Aliou balaa kool di ñëw ah Seydina Ali Seydina Ousmane wax ji am na solo lool. Mhm. jàng nañ ci lu bare bare bare. Mhm. leen daal lañ ci teg. Mhm. mooy nit na xam ne waxtu wu ñu tuddee bakkan rek. nga xam ne jëmmam. mooy moo tax ñuy wax. mooy ruuxu. daf ko daan maanaam bakkan dafa daan ruhu ba tax ñu naan ko bakkan bakkan bakkan bakkan bakkan ba sax soo bàyyi xel li feeñ ci àddina mooy jëmm li ko arab di waxee rek mooy mooy nafs parce que moo feeñ moo fi représente li feeñ li nga xam ne dafa nëbb ñu ngi koy tuddi ruux te ruux mooy benn mooy secret mooy secret boo xam ne yàlla moo koy def si jaam yasalunaka ani ruux quli ruux min amri rabbi wa ma utiitu min al ilmi illa bés bu demee nag ba nga xam ne not na ruux not na jëmm ji su boobaa nag jëmm jooju dafay doon jëmm joo xam ne ku ko xool mu fàttali la yàlla dafa am lu mu wax léegi mooy bokk na ci ni ngay def ba set mhm. mooy nga dem ci nit koo xam ne am na fu mu jaaroon mhm. ba nga gis ko ci yenn maqaama yi mhm. kooku moo lay mën a wax ne tegal fii sa tànk yoon wu nekk ka fa jaaroon ka fa jaaroon moo xam pakk yaak gis nga gis nga gis nga am na ñu ñëw ñoo xam ne dañuy bëgg ñun ñu dog suñu àlaaq suñu digganteeg ñi nga xam ne ñoo leen war a mën a omat xam ko am lam lay gëmloo mooy kenn tanewut kenn hadis bii la qaala la qaala rasulullah qaala la rek jàpp ci sëñ bi mooy xëy cëpp kenn tanewut kenn kenn tanewut kenn bëgg a wax na ñëpp a yem mhm. am na koo xam ne moo la jiitu man mhm. tane mhm. gis nga nit ki bu bus bu jaax ni yàlla ni la yàlla may sutura bis boo jaaxle sa jëmm ji dem seeti koo xam ne loolu la xam mu wax la ci ay saafara noonu nga war a xam ne boo jaaxle ci sa ruuxu demal nga seeti koo xam ne am na ci ay saafara euh, euh, tabaarakala ñu jël koola bi ci line bi bismillah hello salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah oustaz naka suba si. ñu ngi sant yàlla bu baax. maa ngi leen nuyu. ñu lay fay bisimilah. dafa amoon lu ma la bëggoon a laajte. waaw bisimilah. soo amee comme ça yaa ngi amee jëkkër. waaw. jëkkër bi di nangu nga dem sa mbokk yi sax seeti mhm. yow nga foog noo war a def. ah loolu ngay laajte nu nu nu kooku war a def. waaw waaw bu soobee yàlla dinañ la tontu léegi. <laughs> Euh, yaa yaa imaam euh, dégg nga ko nga déglu rek soo dégloo léegi ñu tontu la <laughs> euh, yaa imaam dégg nga ko xam nga dafa am dafa nekk nag jafe ja masala bu bari jafe-jafe la mm. ci ci sëy yi léegi mm. parce que jigéen dafa am gis-gis bu mu gis léegi mooy li ñuy ooy xurriya liberté mm. te lislaam li tax ñu jël ko jox ko góor mooy dafa bañ mu am liberté parce que liberté bi ñuy bi ñuy sàkku ñoom ak bi leen lislaam jox du benn lislaam dafa am liberté bu mu jox jigéen am bu mu jox góor hmm. waaye am boo xam ne nag masuliya dafay aju ci kaw góor hmm. mooy ar rijalu xawaamuuna ala nisa hmm. foofu la euh, décision di feeñee ci diggee seen diggante ñoom ñaar su ko defee nga leeralal leen foofu Seydina Ousmane tontu bi dëgg-dëgg mooy toog moom li muy laaj moom tontu bi moom sa jëkkër bugg nga seeti sa mbokk yi mooy toogal parce que sa mbokk yi dañ laa jox jox la yeneen mbokk sa mbokk yi mm. bi ñu la jëlee génnee sa kër mm-hmm. dañ laa wax ne léegi sa yaay mm-hmm. sa goro mooy sa yaay foofu mm-hmm. sa baay nga doon nga fi amoon sa bàyyi jëkkër mooy sa baay sa jëkkër mu ne ah, mu ne mooy sa mooy sa muroda mooy sa système moom nga dëkkat Seydina Ousmane li li ngay def rek mooy toog li nga li nga wax ne nag pour suñu buggee euh, euh, déggal mi li may wax si mooy yonent bi dafa dafa sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne jigéen bu jullee waxtu juróomam mhm. joxe asakaam mhm. def léppam topp ndigal jëkkëram mooy dafa am yoo xam ne mënu ci mucc mhm. sa jëkkër mënu laa tere julli boo mënu ci dara bu la waxoon ne bul julli waaw boobu ci dara nga am loo loo war a a génnee asaka mu ne la bu ko génnee boobu mënu ci dara nga war a woor faratak weeru koor mu ne la bul woor boobu mënu ci dara nga li ci des na mooy da nga koy déggal parce que bul seeti sa yaay wala bu fi génn dem seen kër loolu loolu du bàkk maanaam loolu wax wax gi mu la ko wax du bàkkaar du bàkkaar ci moom li si des nag mooy kenn ku nekk ci yéen ñaar dafa am lu ñu tuddee mu daariya mooy mm-hmm. mooy mooy waxtaan mm-hmm. mooy nit ki saa yoo xam ne mu ngi lay tere rek ñaari am na lu nekk ci gannaawam mm-hmm. am na lu tax mu tere la ko tax mu mhm. tere la ko loola nag ngay fexe saafara bu dee njuumtale la ci moom mhm. moom ngay fexe di ko saafara parce que yéen ñaar yéen bokk ci néeg bi mhm. waaye tere gi mu la ko tere du bàkkaar la lay bàkkaar mooy nga def ko yonent bi na ci ci kanam koo xam ne maanaam jëkkër ji nekku fi yaayam mbokkam gaañu mu ne tàggu yonent bi ne ko dama ko bugg a seet mu ne ko waaye suma jëkkër digalul ma ndax mën naa ko seet mu ne ko di toogal noonu noonu noonu ba kooku way juróom bu góor gaañu su ma mhm. jëkkër digal mu ne ko toogaat mhm. liñ ci déggee rek mooy mhm. xuriya bi dëgg-dëgg mooy nga topp yàlla ci lim la sant topp jëkkër ji ci lim la digal incha allah boo dee dugg sa aljana feeg digalul la lu yàlla bañ rek incha allahu da koy topp ci loolu ñu jël koola bi ci line bi bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah sëñ leen di nuyu ñu ngi lay fay Ah, di rafetlu waxtaan yi macha allah. ma amoon laajte bu ndaw rek ndaw la ndawut moo bëggoon a laajte. waaw bismillah. yàgg naa ko laaj nag ñenn ci borom xam-xam yi am lu ñu ma ci doon tontu. Mhm. waaye nag tontu yi xawoon na wuti moo tax ma xaw a jeexle ci tontu boobu. Mhm. mooy bëggoon naa xam lan mooy tarixa. waaw. bëgg naa xam tarixa ndax ñëw na ci alquran wala ci sunna. Mhm. bëgg naa xam ndax tarixa si boppam si fekkee nit ki bokk si ndax ak jullit yi am dëgg la wala dëgguwut mhm. lii daal bëgg naa leer leerlu bu baax baax na léegi tey mu leer incha allah <laughs> tabaarakallah jërëjëf uh, imaam Ali Badou njaay bi dañ la koy jagleel parce que yàgg nañ cee gis sa baax yu baax yoo ciy def waaw baax na li koy wax rek mooy mbirum tariqa mhm. baat bi mooy yoon mhm. mooy manhaj buñ xoolee ci taarix bi yonent bi génnee àdduna mhm. ci la ay yoon yoon mhm. commencé di fàcc mhm. kenn ku nekk nekk sa yoon waaye ñu gëm tamit na yoon bu ne ka ko ka ko tàmbali wala ka ca boo ko laajee looy ut la yàlla lay ut ñu fekkee yàlla nekkul nit koo xam ne benn jëmm la ju toog comme man xam ne benn yoon rek ngay jaar mën a ñëw ci moom maanaam yoon woo jaar wu ne man ngaa dem ci kooka mm-hmm. ak moo xam madhab la mm-hmm. yoon lañ koy tuddee madhab mooy tariqa mm-hmm. mooy manhaj lépp loo gis rek mooy lu ñu organise la rek lu ñu organise kon yoon bi ci yàlla la jëm yoon bii ci yàlla la jëm ñu ne boo jaar si yoon bi doo egg ci yàlla mm. loolu moom mënta nekk dëgg la li ñu koy mën a wax daal mooy su fekkee dafa nekk ci tariqa ak tariqa ba mën a ne nañu laaj ndax tariqa ba dafay dem si yàlla wala déet bu fekkee ci yàlla la jëm mhm. bu si jaaree dem mhm. moom calam ne bu mhm. fekkee ci yàlla la jëm mooy bu fa jaaree dem ndax ñëpp yàlla ñi ut amma tariqa sàngam wala madhab sàngam man bokk ma ci loolu tere egg ci yàlla déedéet man ngaa bokk ci madhab bii keneen yëg nekkaat ci beneen mazhab mhm. yii ñëpp ngeen bokk jëm ci yàlla ma mhm. ngaa ne ci tarixa bii mhm. kii nekkaat ci beneen tarixa yi ñëpp ngeen egg ci yàlla yàlla nag wax na ko ci alquran neem su ngeen ma ragaleem yàlla dinaa leen ubbil ay yoon mooy subul waaw dinaa leen indil ay yoon yoon yooyu yëpp si ngeen di a jaar pour ngeen egg si man Mm-hmm. kon alxuraan tudd na ko mm-hmm. baatab pour ni ñu ko tuddee tarixa mm-hmm. moom mooy tudd moom la mooy firi madhab waaye mooy firi manhaj lépp moom moom lay firi ñun fii tarixa lañ koy ooyee am na ñu koy tuddee manhaj am na ñu koy tuddee système am ñu koy tuddee lu lu a doon baa di ñoo wutee rek waaye madhab malik ak madhab shafi benn bu nekk yoon la mën nañ ko tuddee tarixa yoon la kon ku jàpp ci madhab malik yaa nga jëm ci yàlla ku topp ci madhab shafi yaa nga jëm ci yàlla toppaat ci yeneen madhab yëpp mhm. ñun nag fii tariqa lañ koy ooyee waaye yëpp ci ci jaami la bàyyee ko wala mu ci yàlla la bàyyee ko mhm. waaye ci yàlla lay demaat mhm. macha allah incha allah euh, imaam Ali liñ ci yokk rek mooy ni ma ko laajtee mooy euh, euh, ndax alquran tudd na ko alquran lépp luñ cey def day tudd na ko ci tarixa yi ma xam man lépp luñ cey def rek tudd na ko ma jël koola bi ci line bi incha allah ñu del si waat bismillah maanaam waxtaan yi. jërëjëf naam mm. bisimilah. yal na yàlla boole dimbale. amiin amiin yaa rabbi amiin. yaa rabbi amiin. li ngeen di wax yal nañu ko topp. amiin yaa rabbi amiin. ñu ko topp yal nañu ko jëriñoo. amiin yaa rabbal aalamiin. yàlla fi ah. ñu si yomb si waatam yaa ilaahi. tabaarakallahu li doon yokk rek mooy um, lañ cay def. lañ mhm. lay tax ñu ne tarixa waxuma nag tarixa léegi. Mhm. yi nga xam ne folklore la. Mhm. da fexe ba am ab nataal ñu xam ne ci nga bokk. dangay fexe ba sant xuyoo sant diw ñu xam ne ci nga bokk déedéet. loolu du tarixa. tarixa naafila la. muy ndollantug jaamu yàlla goo xam ne yaa koy warlul sa bopp. goo xam ne yaa koy warlul sa bopp. mu am ku la ca gën a xam. gide la ca won la ca yoon. loolu lu ñëw ci alquran la. lañ cay defit lu ñëw ci alquran la mhm. kon su boobaa nañ ko tontu ci beneen bi ci des mooy mhm. ndax bu ci jullit nekkut mhm. ndax euh, diineem wér na ah su fekkee ne la ñuy def noonu maanaam ñooñu nañ koy defee defee woo ko noonu du tere nga nekk jullit waaye nag euh, la ñuy def noonu su fekkee yow da nga koo weddi newoo jullit moy ne su fekke da nga weddi sen la ilaha illallah mhm. wala nga weddi sen istighfar wala nga weddi sen salatu ala nabi kon du wo julit mhm. waye bu fekke ne nak ñom dañ koy defé ni mhm. te yow bokko ci nañ koy defé nonu du tere nga nek julit julit haqqan euh, imam ali lañ ci cey tan bi deug deug dëgg wax ji na solo lol lacc bi amna solo lol euh, bal ma jël kol bi ba paré nga ñew bismillah bismillah wa waaleykum salaam seen programme bi dafa am solo lol Mhm. bisimilah. waaw ah. maa ngi laa jaajëfal seen waxtaan bi dafa nii. Mhm. dafa am solo waaye man déggu ma olof bi loolu moo tax. <laughs> ah dégg nga olof kat li nga wax ni moom olof yi seet wecc. <laughs> jërëjëf jërëjëf jërëjëf macha allah. imaam Ali a li lii def li ci li mu ci tontu dafa leer nañ mhm. mooy yàlla dafa ci alquran walazina jahadu fii naa la nahdiyannahum subulana mhm. loolu kum kum neex looloo am kum naxari looloo am mhm. mooy ku góor góorlu ci man laa wa yuallimukumu ku lu ci man mhm. di lu rek di gor di nga dang ba ci kanam dina la ubbil bunta boo xam yon yoon woo xam mhm. yow la koy fàkkal mhm. nga jaar fa yoon wo na usman buma fa bama gis ne man bima fay dem bagage nekichi nganda yo nek ci nek ci ba yalla ubil ma yoon wo duma woyotal suma way ne ko kay kay ma kay nga ñew mu ne ko man day fi la jaar ba yalla may ma li dama bugg nak yow itam nga def li gis nga bo gis nga bo dal astaghfirullah def li jël li ko da nga egg fi Mm-hmm. seen Ousmane loolu moo jur yoon mm-hmm. moo jur moo jur tariqa mm-hmm. nit ñi nag mënuñu mënumaa mënuñoo nangu ku tudd mazhabu Malik nga d'accord ne waaw loolu de moom he mazhabu Malik mooy tariqa Malik de man nangu naa ko ku tudd mazhabu Safi nga d'accord ku tudd Abu Hanifa nga d'accord ku tudd Imam Ahmad nga d'accord ba ci ñi nga xam ne ñoo mujj ñëw ñëpp ku tudd nga d'accord waaye bu jaamu katabi yàlla ak ku ragal yàlla tudd eh, ku ko tudd ci mbir mu ko yàlla ubbi mm-hmm. nga bañ mm-hmm. loolu man mënu ma koo dégg tabarakalla ma jël ko laas koola bi bismillah bismillah hello salaamaaleykum waaleykum salaam bismillah ma ne naa rafetlu ci programme bi trop uh-huh. man dama xam naa bu may laajte aha uh-huh, bismillah ñu ne bu dee mën jël ak sa jabar eh, si guddi weeri koor mm-hmm. ah bu dee yow seetuloo ba time yi xëdd jën na. Mhm. ndax mun ngaa xëdd ba pare. ah mhm. après nga ñëw sangu. mun nga mën a continuer or wala naka am faa demee daal. waaw incha allah dañ ko tontu ci lu gaaw rek parce que waxtu wi dafa jeex ba. ba pare jërëjëf nga déglu léegi dinañ ko tontu. Euh, Imam Aliou xam naa tontu bu tontu bi lu gaaw lay doon. waaw lu gaaw lay doon mooy kooram moom mun naa weer manam mm-hmm. nit ki bu fekke dafa joteeg soxnaam sangoogul ba xëdd jot ma far xëdd mm-hmm. dogo dem sangu ji mm-hmm. koor ga day wér yàqul sa koor ga dara waaye comme li ci imam ali ndjay di ñaax rek moy doomu adama bi dal bu bu ko lolu garé na góorgóorlu gaaw sangu bala mo def lenen lo xam ne lu jëm ci walu ñam la wala mu jëm ci walu jaamu yalla parce que koor jaamu yalla la bala nga cee suñu sañon da ngay set wetch comme nga xamee ñamit lu sel la bala da ngay set wecc waaye nak taxut terewut kooram baax na mhm. Mhm. wér na incha allah seydina Ousmane koor gi wér na mhm. baax na euh, la nga mujjee woon i tamit mooy ne euh, na ñuy nangulee mazhab yi di ko nangulee tey ñi ñuy tudd par exemple tey euh, suñ sëriñ si ñu jàngal ku ci ku ci wax nga nga nangul ko léeg-léeg nga toog dégg buxaari yi nga nangul buxaari yi sahaaba la léeg-léeg nga nangul fa tabarakallahu ku ñuy wax ibnu taymiya léeg-léeg nga nangul ku ñuy wax suyóotu yi mhm. léeg nga nangul keneen ak keneen mhm. waaw dëgg-dëgg na nga def ba xam ñooñu ci wàllu woo am na ñeneen ñu xam ci leneen mhm. loo xam ne yàlla lum gërëm la kon ñuy nangulante ci li yàlla gërëm te xam ne yàlla du benn ndab te it benn potindaa du ca sotti benn baag du ca root tabaarakallah ku nekk ak baagam ku nekk ak potindaam ku nekk tamit fa tabaarakallaahu man hmm. ngaa tibbee ci moom la nga bëgg eh, incha allah waxtu bi dafa jeex tàkk imaam Ali Badou Ndiaye nga tàggu waaw ñu ngi sant yàlla bu baax hmm. di jégalu nag hmm. te di jégal ñëpp rek ñaan yàlla yal yàlla may koor euh, mhm. mhm. ba pare tamit ñu tàgg daji suñu bakkan ba bokk ci nga xam ne mooy ruuxul malakooti ya incha allah te bu ñu mos a daanooti suñu jamono ñu ngi koy yéene ñëpp dinañ ko incha allah mhm. asalaamaaleykum wa lu gàtt waaye di ko gërëm bu baax a baax di kontaan bu baax ci jàppandal gi eh, te xam nañ ne sotti na fi tey loo xam ne wax dëgg yàlla lu ko raw eh, am nañ si lu kawe suñ njort ci lim fi indi ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla defal ko tawfiq di tàggu rek incha allah ne jaam yàlla yi ba ëllëg ak jam incha allah. Mhm. ci beneen waxtaan euh, waxtaankat. Mhm. Euh, tabaarakallaahu yéen tamit ñu wax leen euh, jërë ngeen jëf ci topp gi nga xam ne da ngeen sàlloo di ko topp programme bi di yor yor koor di wax ne xam-xam nag ñaar la mooy li nga xamal yàlla ak lila yàlla xamal. Mhm. li nga xamal yàlla mooy li nga yër ci téere yi ñu wax ko ci yàlla nga xamee ko ci. li la yàlla xamal nag mooy li nga góorgóorlu sa digganteek moom rafetal ko ba mu yenkewal la ko loolu nag moo tax a jóg bakkan moo tax a jóg ruuxu te loolu la ruuxu di tegtaloo mën a euh, continuer dundam dem ci yàlla kon loolu la ñu tënk ci lim doon waxtaane di leen wax ne imam Aliou 3900 412 3900 412 képp koo xam ne bëgg ngaa jokkoo ak moom euh, ci laaju diine euh, imam Aliou Badou Ndiaye ku ko bëgg a jokk ci 3 1 392 0675 0675 392 0675 392 0675 ku ko bëgg a jokk man su dee mën nga bëgg a jokk mën nga ma jokk ci 3432 658 ñu di leen tàggu di leen jox dox daje ay bés bi ñëw ci waxtu wi wala subaak jàmm incha allahu léeg-léeg ma ne ay bés bi fekk suba la waaye subaak jàmm daal ci waxtu wi ngeen ñu tàmbali eh, di ngeen ñu mën a toppaat incha allah ak beneen borom xam-xam bu ñuy àndal ci beneen tomb incha allah wasalaamualeykum wa rahmatullah